Fall sama magu yaay la moom mooy taawam ayca yéen a kaay groupe des médias koy euh, tàmbalee dafa ñëw ci li ñu doon waxtaanee sànq benn audition bu nga xam ne euh, ñu war a déglu Ousmane Sonko si coowal Adji Sarr Ousmane Sonko coow lu euh, siw loolee nga xam ne jàppale na yéen kaay bi dikk na si nee nag xabaar ba jib na takk der yi gendarmerie nekk nañu en alerte ngir nag ñu mën a déglu ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ci audition bi vers un en correctionnel en tout cas yéen bi foofu la dikk douze avocats moom Ousmane Sonko pool d'avocats am nee nañu lu mu gàtt gàtt douze avocats jël na ngir ñu layoon ko ci coow li nga xam ne moom moo ko topp mu di coowal euh, Adji Sarr yéenekaay bi euh, dikk na ci ba tey bu ñu desandee euh, ci mbiru Ousmane Sonko nemmeeku tuur bi nee nañu sanglant la tuur deret la mujjee foofee sa ceeki sa jas ndax nag foofee nga xam ne cikki cikki ma ne ceeki laay wax am ceeki am ceeki non cikki Kiki sa jasan ah? waaw waaw sa dëkk la muy dëkk ñoom euh, Gris Bordeaux Gris Bordeaux Kiki ah. Kiki sa Kiki boobu de benn waay daal bi ñoom Ousmane Sonko di romb wax seen nemmeeku tour bi moom ci euh, boppam tour Adji Sarr la yëkkati euh, naka la wax Adji Sarr taa daal si kawam baax na wala ma dem ma doxal voilà moom tour Adji rek la wax Euh, daal di gars yi daal ci kawam nag daal ci kawam song ko dóor ko dóor yi metti ba nee nañu fu mu nekk nii moo ngi nekk si duggante du ndax dee en tout cas information boobu la ñu am si ne nemmee ku tuur ba nga xam ne nee nañu euh, sangla la mu jéeg ay gros bras yu Ousmane Sonko nag la ñu tuumaal ñu ne ñoo daal ci kaw waa ji ndax turu Adji saar bi nga xam ne moom la moom moom la yëkkati foofee nga xam xale bu am kilifa xale bu am kilifa doo fekk bàyyi jàmb bu ñu muy seeti base politique am ma koy dogaale yi ko tuumaa naan ko njaalookat dañu waxante dëgg xale bu am kilifa xale yu am kilifa kenn agressé leen gis nga lu dem danga tu te mets à la place de la personne nañu arrêté nemmeeku tuur jàmbur yi ñuy saboté mhm, mënuñoo tey nit ñi dem seen i base politique mënuñoo tey dem nit ñi nit ñi dem nemmeeku ji waatee mhm. nañu bàyyi loolu donc waa ji aji aji sax daal la wax. gaa ñu daal ca kawam. Euh, defal ko bagage ba nga xam mu nekk nii moo ngi nekk si diggante dund ak dee. sabooti visite jàmbur ñëpp am droit politique. Mm-hmm. ñu ñëwaat ba tey ci mbirum yéenekaay bii di groupe D-Média gros exploit la ñu ko tuddee douane bu senegal def na liggéey bu am solo. def na liggéey bu am solo ndax tegati na loxo ñetti téeméeri kilogramme yu nga xam ne ni cocaïne la ñu xayma ko ci vingt 24 milliards suñuy koppar cocaïne boobee nga xam ne du doon euh, nee nañu oto bi ka defoon camion bi. Euh, Mali lañ ciy matriculé euh, mu doon kaañ bi fii ci diwaanu Dakar fan la doon ñëw nag fii ci diwaanu Dakar en tout cas teg nañ ko loxo vingt 24 milliards lañu ko euh, xayma njiitu réew mi président Macky Sall ak tur yi nga xam ne daf koo topp te daf koy yàqal ku ci mel ni kon Franck Timis ñu si des nag seen tur yi moom ne naqa dinaa wax Ovio Di <laughs> Ovio Diu Tander Ndiok Ayuku Eyong ak Petit Boudé mu mujj nii barki déem boo Ndiaye Petit Boudé nga xam ne moom lañ doon euh, tudd ci euh, kopparu armement bi euh, ñu bari yaakaar ne est-ce que tam bu njëkkatee coowal Adji Sarr bi est-ce que duñu nëbb boobu la xibaar lu mu ci manti doon mu ngoog xibaar bi jox nañu ko nemmeeku tuur bi nga xam ne si tuurum deret la mujju yéenekaay bi di Vox Populi daal di ciy dikk yéenekaay bi mi ngi nekk nag di xam ne ne kon foo li mu ngi am si ciiki comme ni ngeen ko waxee defante bu metti gannaaw bu ñu fa yëkkatee kon turu kii di Adji Sarr Mamadou Dione maire bu Diass mu ngay euh, ñaawlu barbarie bi nga xam ne nemmeeku nañu ko doxalin bu ñaaw gi nga xam ne nemmeeku nañu ko euh, ci euh, gros bras wala nervi yu Ousmane Sonko moom noonu la ko gisee maître Abdoulaye Tall porte parole bu Pastef nee na mbir yi embuscade kese la. nañ bàyyi yàq der bi embuscade la donc nag ku jëlee gaañu gaañu c'est que yaa ngi woon ci biir audition Sonko GMI yi jox nañu consigne consigne bi jox nañu leen ko waaye consigne boobu si mbedd mi la mujj. en tout cas lu mu ci manti doon euh, nee nañu leen nag fu mu nekk takku leen taxaw ña nga xam ne ñoo amoon permission sax nee nañu ñëwaat leen euh, ndax nag fi ñu jëm dafa laaj renfort ndax laaj na renfort ndax laaj ñu rek yaakaar euh, jël dëkk bi yëpp def ko ay ay takk der daa mel ci man wala ma yëkkatiwaat wala ma def ko ci poos bi en lu mu ci manti doon vox populi dikk na ci vox populi également dikk na ci 2024 c'est déjà acquis pour le président Macky Sall loolee a ko xam moo di xaritu euh, Mamadou Fofana tootoo tàpp paate paate <laughs> tootoo tàpp taata ah Cheikh Oumar Anne nee na noonu la tontoo ki nga xam ne moo di Alioune Tine ak ay ñoñam ñu ngi leen di xamal ne kon 2024 coow li euh, matatu ko ndax mi ngi ci poosu président Macky Sall ba euh, noppi enquête sur mars 2021 le ministre de la justice Ismaïla Madior Fall def na le point si yéenekaay bii di Vox Populi le vrai journal dafa ñëw ci réforme à répétition prétexte Euh, code de marché en souffrance yónneekaay bi foofu la euh, génne di le vrai journal Walf Quotidien dafa ñëw ba tey si affaire yi suite yi en tout cas njaw mu ngaa wéy di sa des wu xam bi nag coowal Ousmane Sonko Adji Sarr gi euh, kon nag alxemes ñoom joxe nañu sax bés bi waa Walf Quotidien joxe nañu bës ñu ngay xam ne ne kon alxemes dinañ déglu ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko gendarmerie ak police nekk nañu en alerte maximale xamal nañu leen nekkoon kon leen taxaw euh, euh, de permissions yi nga xam ne ñenn ñi amoon nañu ko sa waxoon nañu leen ñu daal di ñëwaat rédaction bi nag donc képp ku fi am permission dañuy ñëwaat ah Birahim mhm. ñi war a dem conseil dootu ñu dem <laughs> conseil hmm? non Birahim bi nga bëgg dafa yomb yéenewu ma la fa de ma na maam fii kenn du fi dem congé. ñu dem ci Sud Quotidien ah. bàyyi gars yi dem congé ëpp naa bañ a dem. man sama man man mën naa dem congé parce que sama congé après. bu leen ci benn fan sax bu leen koy foree. <laughs> jëlee ko jël dafa am solo de. bu dem congé de Ibrahima. <laughs> ayca ñu dem ci Sud Quotidien. mu nekk waxul dara. tentative bu troisième mandat euh, Mamadou Diouf professeur ba nee na président Macky Sall wax fa dëgg neex yàlla euh, résultat yi ñu mujj ci législative yi rek àtte na la. donc su may yow rek euh, troisième candidature bi da koy teg si suuf ndax boo ko forcé bu yeboo nga xam ne ëllëg dëkk bu tàkkee yow la Mamadou Diouf loolu la xamal président Macky Sall euh, ci euh, Sud Quotidien ñu ñëw ci Source A Source A dafa ñëw ci li nga xam ne rek moom mooy rapport Cour des comptes jëm ci contrat d'affermage lu mu gàtt gàtt les dépenses de la SONES nee nag trois fois supérieur à kon nag leer na la muy génne ci koppar la muy encaissé du benn la muy encaissé néew na trop trop trop par rapport ak la muy génne Euh, si SONES alors nguurug Sénégal dafa bëgg nag wax fa dëgg neex yàlla euh, matale li nga xam ne mooy convocation bu Ousmane Sonko yéen kaay bi dikk na ci euh, nee nañu ba démb daal ci guddi ñoom waa Ousmane Sonko ak seen i avocat jotuñu benn convocation bu nga xam ne nii dëggal na ne kon war nañu déglu njiital Pastef moom Ousmane Sonko ci mbiru Euh, euh, masseuse boobu di Adji Sarr en tout cas ñoom nee nañu ba ba démb ci xaaju guddi jotuñu information boobu euh, kon nag ñoom dañ koy dégg nii rek ni kaskan wi di déggee ñoom it ak seen mbirum Oscar beex langage code beex ñoom seen ni ñu ko déggee rek la ñu ko déggee le xam ngeen ne kon fooraay bu jàmbagan bi ñoom dañ doon génne jeunes éleveurs yi doon ñaxtu ci bërëb ba en tout cas président Macky Sall nee nañu dafa mel ni kuy def opération de charme ndax def na titre foncier Euh, seen site boobee nga xam ne fa la ñu nekk fooraay bu jàmm gën est-ce que kon dafa teg bëtam euh, ci euh, bërëb boobee ak ña nga xam ne ñoo fay sàmme yéen kaay bi daal dina siy dikk fuite bi nga xam ne doon nañ ko wax sànq maanaam ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir yenn yenn yenn yenn yenn moo xam ci ministère yi wala ci takk der yi yenn information yi nga xam ne ci biir la waroon yem ñu daal di koy tas gëstu boobu la nga moom la l'observateur def ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy nemmeeku tuur Euh, bi nga xam ne deret daf caa mujjee tuuru affrontement yi si Cikki douane bu Sénégal soixante mille kilogrammes de drogue euh, la ñu maanaam deux cent cinquante milliards de francs CFA si diiru que trois ans yi ko yéen a def liggéey bu am solo drogue bi nga xam ne yéen a ngi koy euh, bu am solo la l'exclusif troisième mandat bi ak deuxième quinquennat bi Benno Bokk Yaakaar ci week bi fu mu nekk nii dañu ko enu di ko daw ngir dëggal wala xool ni ñuy rafetalee rek troisième candidature bi si meetingu éleveurs yi la Cheikh Omar yëkk yëkkatee kàddu yooyu doon sa tontu critique dafa ñëw ci lancé euh, alerte lancé jëm ci euh, mbiru Ousmane euh, Sonko yéene kaay bi daal dina ci dikk jëm mbiru Ousmane Sonko yooyu sax xaritu <laughs> Mouhamadou Lamine Massalé su ma ko waxee tam El Hadj Tëm di passé nekkoo fi woon en tout cas moom dal na ci kaw Ousmane Sonko Mouhamadou Lamine Massalé ak ay nitam mu ngi koy mu ngi leen di xamal ne wax dëgg yéen seen doxalin gi nga xam ne foo leen jaar tuuti deret naa mën a ñàkk. Euh, xoolaat leen seen doxalin te nguurug Sénégal na am fulla gu doy ni képp nga xam ne dangay ngay semer bordel ñu dëj la sab ànd nee na bu ñu amee lu ñuy lijjanti dañ ko lijjanteex aji saar waaye bu ñu ko lijjanteex askan bi nga xam ne dañuy doxi seen i soxla Ousmane euh, Mamadou Lamine Massaly moom moo tontoo noonu euh, waa Pastef alerte dafa ñëw ci noow codé bu Oscar Sierra nee nañ mooy loolu mooy firnde Sonko bi nga xam ne war nañ ko auditionné ci lu yàggul dara la police sur le pied de guerre kon nag nekk nañu takku nañu taxaw Habib Niang lancé na kon li nga xam ne moom mooy rentrée politique ak action sociale bu mu def distribution fourniture scolaire la euh, joxe Yacine ñu euh, jeexale oja oja voilà dafa ñëw ci euh, Odia dafa ñëw ci Y'en nga xam ne lii nga xam ne moom la ñu lancé bu ko sax jéem ñoom mooy bàkk bi ñu génn présent Macky Sall troisième mandat bu ko sax jéem alors ci suuf nag ñi nga xam ne ñoo taxaw ngir défendre troisième candidature bi ñoom it ñi ngi jaay seeni i t-shirt waaw euh, euh, Biram Souley la ñu def nii ak Sow bu ko gère ñoom ñi ngi jaay seen i yëre def ko promo en attendant euh, cent cinquante un million cinq cent ci ay clients la ñu soxla boo jëndee benn t-shirt anti NTM ñu daal di lay may dix ñooñu mooy waa a marre ñoom promotion la ñu nekk donc ñoom boo jëndee benn yow boo d'accord ci nga xam ne mooy troisième mandat boo jëndee benn t-shirt ñu may la dix ñee si suuf ñu ngi xaar un million cinq cent ci ay euh, clients lii mooy actualité bi nga xam ne moom la Odia génne ci week-end bi jëm ci troisième candidature bi xëccoo bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci ñaari camp yi maanaam opposition bi problème bi mooy mhm. coow li am yépp depuis daaw jéeg ñu dàq fi ay DG def ay manifestation mhm. def fi ay meeting def ay débat est-ce que kenn mos naa dégg Macky Sall ni moom candidat la waxagu ko de moom daal li ñu dégg mu wax ko mooy affaire candidat bokk coow li yëpp kenn. gars yi ñoo koy alimenté de coow ak troisième ah, candidat ñun ñun ñun ñoo koy alimenté suñu cas mu ngi bëgg a compliqué. ñoo koy bu amee ku bees ku génn bu amee ku bees ku génn génn ci mag rek. bu bu nee tëll a a am buzz mooy troisième mandat. <laughs> yow yow yow ndey mbi di moom waxul jëm ci wàllu boobu nee na ay njabootam bu ci kenn wax ku ci wax sax mun la demal toogi hmm? bu ko kenn tudd mais bàyyi leen bu mu tudd ko. day na waar bu tuddee kay ñun ñor nañu. <laughs> wax ko dëgg mais ay ay yëngatu yëngatu yoo xam ni saabu bu élection jigéen sax lañ leen di dégg lañ leen di gis alors dund gu cher gaa ngi fi accident yi nekk ci tali bi. Mhm. seen eau di def lu ko neex ak Aquatec ci dëkk bi. te kenn du wax ñu facturé nit ni mu leen neexee ñu toog seetaan di ñu bëgg rek troisième mandat aji Sonko convocation. drogue. Mhm, mhm, vraiment. actualité bi foofu la de nit ñi Sénégal du loolu. c'est dommage <laughs> Sénégal du loolu am na ñoo xam ne xoolal. Malicounda aquatique day ñëw couper sa robinet Malicounda ñu ne xam nga xam nga fay fay ñu bonne coupure Thiès. injustice yoo xam ne ñëw di nangu ndoxu ndoxu kaw-kaw yi par la force di ko jox ay aquatec gars yi noppi seetaan mu ni fi xuñu ni kenn du ko tudd ay ay ay non non non am dafa am yu gën a nekk farata quoi. Mhm. fii laa interpellé Ferra ci tali yi nga xam président Macky Sall daf ko annoncé pour ñu war koo defar. ka fa nekkoon directeur ni bu ma tudd di turam. man ko waxi caaxaan. <laughs> fii ak ñu ngi lay dénk li askan wi moom daa ñu la tudd. di jiite te bëggoo ku la wax. dee ñu la tudd. bu fekkee di jiite te kenn du la wax jiite li askan wi yor. alaaji xibaar xibaar. dañuy wax ci loolu waaye. askan wi askan wi dénk la nga ne nga ne bu ko kenn wax. tudd ba sàmba di ca boo tuddee sax ñu sàppale bu nekkatul dara nag kenn du ko tudd man xaw ma ko. ñu sax xam waaye feeraa ci kenn. dinaa ko tudd tudd ki remplacé. sëñ sëñ nga dañ lay woo la day mu tudd. te yow nga yor yëfu askan wi. moom dëj mën nañoo jooy seen dëj. bàyyi ma tiitre. El Hadj ay ñeenti blessé am na ku ma woo ñu dàq. ndax déglu da ngay déglu bu wér bu jotee mu daal. dama ko retet dama ko retet ah fii kuñ fi reetee fii dàq la di lay déglu de sàgg ne ko dinaa la retet fii kuñ buñ la reeteetee rek yàqu. bàyyi noonu rek. mun non dama ne mënuñu yor alalu askan bi ne duñ leen dénoncé. bañ a nekk reeteet leen. ñeent blessé ah, fële ci ci kii ma ngi ci commune bu Diass ay manifestation moo fa amoon Ousmane Sonko def nemmeeku tur ñu ni turu Adji Sarr mel ni ku koy kokkali mu mujj soppali ko ay xeexoo. grève bu 72 heures la association yi nga xam ñoo nekk ci euh, interne ak ancien interne yi ci hôpitaux yi ndax la ñu lu tax ñu déclenché boobu la grève mooy. dañu gis ni nguur gi engagement yi mu defoon amul lu mu ci respecté bokk na ci seen statut ak euh, amélioration mu yokkute ci seen wàllu condition de travail ak yeneen yu mel noonu ba ci sax dëkkuwaay muy hébergement dinañu wax itam ci quantité bu ngand ci wàllu drogue bu ñu nangu fii ci Ndakaaru ñetti téeméeri kilo cocaïne loolu la ngi am samedi bi ñu weesu euh, brigade commerciale